Momath Cissé ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Ah, yow yaay vice président association bi ëmb consomateur yi tey euh, euh, gannaaw ab décret léegi ab loi la ñu bëgg ngir rek euh, muy saytu li nga xam ne moo di wàññi ci loyer bi mun ko saafaraan ndax jàpp nga ni loi boobu solution la. waaw jàpp naa ne loi bi solution la parce que 2014 bi ñuy wàññi prix location bi loi lañ ko defoo donc bu fekkee ne dañuy seet nekk. loo xam ne dafa méngoo kon buñ koy jàppaat ren en deux mille vingt deux dañ ko war a jaarale assemblée te ñu ngi ciy liggéey pour que mu war a jaar assemblée le plus rapidement possible sous forme de proposition de loi. maintenant euh, li ci gën a am solo mooy que dañu gis ne li war a luwaat mooy que location bi fii ci Sénégal yokku na deux cent pour alors que booy tabax suuf si terre bi. ndox mi ciment lu mu yokk-yokk àggul quarante huit pour loolu tax na ba ñu ne nañ toog seet ndax góorgóorlu bi war na am fu mu nekk looloo tax ñu créer cadre concertation nationale buñ ne nationale rek ñëpp ci bopp bailleur bi nga foon expert immobilier mu ngi foon association consommateur ñu nga foon état mu nga foon mm. muy loo xam ne xumtoowuñu ko waxtaan nañ ko lu mat weer parce que dix neuf commission la woon am na commission boo xam ne rek loi rek la doon waxtaanee ba nga xam ne liñ ci génnee euh, war nañ ko mën a jëmmal sans problème ñu ne nag nañ ko jaarale assemblée bu ko defee euh, mu gën a am gët muy euh, consensus boo xam ne suñ demee mise en œuvre bi warul am benn jafe-jafe ndax ñëpp ci bopp euh, mais duñu yem ci loi boobu te ñu yem ci benn organe boo xam ne aussi dañ ko créer muy benn commission de régulation des di du ndax dafa ñàkkoon ci loi 2014 organe boobu su ñu ko composé composition bu rafet nga xam ne part yëpp ciy dugg ak jox ko rôle bi nga xam ne moom lañ ko war a jox mu leer dana mën a nekk diggante partie prenante yëpp surtout bailleur bi ak locataire ndax 2014 jàngal nañu ne vraiment plainte yi bëri woon na tribunaux yi engomp performe euh, dala ay plainte ba loolu tax na ñu xaar ci organe de régulation bi mu jouer rôle bi nga xam ne dina nekk préventif entre plainte boo xam ne ñëw na ñu war ko saafara foofu saafara foofu en avant muy dem ci tribunaux Euh, dina nekk lieu d'information parce que bu fekkee ne xamoo yëgoo tinoo mun na am nga def loo xam ne boo xamoon yëg tin doo ko def dina cartographier par exemple boo ne way nga ngay utee kër wala nga xam ne bailleur bi day ut locataire loolu yëpp boo organe bi dina ko mun a cartographier joxe la bonne information en temps réel ba nga xam ne secteur bi da ngay sentir ne secteur bi assainir nañ ko professionnaliser nañ ko parce que aussi dañuy xam ne aussi agence yi ñi leen war a jël mooy ñoo xam ne xam nañ droit seen niveau baax na ba nga xam ne boo ci demee wax dëgg yàlla li loi bi wax nañ ko mën a appliquer parce que loi bi malgré que euh, protéger na consommateur mais fàttewul seen bailleur d' accord am na ay disposition yoo xam ne mën noonu ci def ba nga xam ne bailleur bi dina ci gis boppam. Mhm. Euh, ci bailleur yooyu sax la ñëw est ce que état bi moom boole na leen si ngir mu éviter euh, problème yi nga xam ne amoon na en 2014. waaw ba boole nañ leen ci. parce nag li may wax rek mooy daanu dajul association yi nga xam ne ñoo gën a représentatif woo nañ leen bokk nañ ci waxtaan yi te joxe nañ seen xalaat donc bokk nañ ci bedd wuñu kenn. te waxtaan wi ni ma ko waxee mooy duré na un mois yoo xam ne dem nañ plénière ku ci nekk wax nga nit dégg ñu consigné alors ñu soog a ñëw primature primature ñu soog a ñëw euh, ci président ñu soog a validé donc bokk nañ ci waxtaan yi mm-hmm. euh, organe de régulation euh, bi ñuy wax est-ce que mën na indil saafara jafe-jafe loyer yi waaw mën na nekk saafara ndax bu bailleur bi jaaxlee mën na fa dem bu bugg a loué mën na fa dem bu bugg a am information mën na fa dem euh, ki nga xam ne mooy locataire bi tam bu jaaxlee mën na fa dem bu amee lu muy laajte bu amee lum bëgg mën na fa dem te la koy wax loolu mooy nekk te mooy méngoog loi bi bëri na ñàkk xam moo tax ñuy def yenn yi mais buñ xasee ba xam wax dëgg yàlla dañ ku si li nga xam ne moo war parce que maa ngi koy seetlu ne am na ñoo xam loi 2014 ba tey ñu ngi ci tënku mm-hmm. ñooñu nag ma yëgale ne loi bi concerné wu leen parce que munoo wàññi de vingt neuf pour cent ñu ñëwaat ngay wàññiwaat de vingt pour cent loolu yenwul maanaam mais dañu gisoon rek ne wax dëgg yàlla ñu ko ciy def bëreetul moo tax da nga maam ñu andi ci wàññite njëg yi mu mel ni mel Euh, marché yi kenn wàññiwul te donte nguur gi waxoon na njëg yi day daal di wàññeeku euh, fan nga jàpp ni moom foofu la problème bi nekk ba njëg yi mënul wàññeeku ba léegi. am na ñu wàññi am na ñu wàññiwul mais boo gisee résistance bi am mooy que dafa am mafia boo xam ne moo nekk ci diggante importateur bi jaar ci grossiste bi demi grossiste bi ba ci détaillant ndax man. fulla ak fayda bi ma am ba consommateur final laa bu ma ñëwee ci boutique bi mu jaay ma loo xam ne naka solul noonu ma mën koo boole ñu ñëw verbaliser ko détaillant bi moom nee na du ma boole kenn lu tax du boole nit lu tax grossiste bi ñu wax ko lim war a am ñu d'accord ci demi gros ñu wax ko lim war a am mu d'accord ci détaillant bi ñu wax ko lim war am mu d'accord ci mm-hmm. gannaaw bu ñu d'accord ci jëfa ci tegu bo jëful nag nango boole ki nga xam ne da nga am moom dafa ëppal la mu waroon am parce que ku ci ëppal li nga war a am rek yaa ngi gaañ kenn boule de neige la importateur bu ëppalee li mu war am mu ngi gaañ kenn ku ñëw jënd ci moom ma jox la exemple tey importateur soble buñ ko ne yow onze mille trois cent la la soble di tukkee mais may nañ la nga jaay onze mille huit cent saako mu jaay conteneur mais bu fekkee ne man dama ñëw ne ko benn saako laa laa bëgg tëb détaillant bi tëb demi gros bi ñëw ne ko fii mais war na maa jaayee onze mille huit cent mais waru maa jaayee douze mille parce que bu ma jaayee douze mille franc rek euh, ëppal na li nga xam ne moom la waroon am de quatre cent franc hmm. te loolu moo tax dégg nga maam mais loolu da koy boole parce que nit war ta jënd te amul facture détaillant bu la ne grossiste wala demi grossiste respecté wul ne ko ana sa facture du la ko wan mukk du la ko wan mukk d'accord te pourtant waxtaan wi A ba Z détaillants yi nga xam ne ñoo demoon grève mais ñu nga fa woon te seen préoccupation jël nañ en compte léegi moo wax la ne bu fekkee ceeb am na am na marge bu ñu leen jox bu dee suukar si am na marge bu ñu leen jox te marge boobu emballage rek mën na cëtu parce que c'est des produits d'appel produit d'appel mooy lan boo duggee ci boutique bi boo jëndee ceeb da nga jënd diwlin boo jëndee diwlin da nga jënd soble. Mhm. boo jëndee soble da nga jënd xorom kooku marge bi dañ koy maîtriser. d'accord. Euh, ci ceeb boobu ak diwlin bi sax la ñuy desandi gis nañ euh, commerçant yu bëri jamono ji dañuy def rétention yenn produits euh, suukar bi ak diwlin bi commerçant yu bëri dañ ko daal di nëbb jàpp nga ni attitude bu normal la ak lan mooy solution bi. am marchandise ma gis ko ñëw ci boutique. dina la jaay ma nga ne doo jaay bu ma la boolee dañ lay jàpp parce que yoon mayewu ko euh, ki nga xam ne moo yore marchandise xanaa nga ne dégg nga maam yoruma aw ma ko jaayuma ko mënu ci dara waaye bu dee yow da nga yor sa suukar ne doo ko jaay boo ko jaayee da ngay perte non seulement war nga mën a wone lu tax ngay perte par une facture parce que jaay perte nag yoon da koy tere waaye nag bu fekkee mënoo wane ne yow facture bi nga jëndee boo jaayee li da ngay perte bu boobaa yoon lay dal sa kaw rétention lay niroo ala kulli ma wax ñiy déglu ne borom boutique warta bu a protéger demi gros bi wala grossiste bi ba moom mu loru ci wala muy lor consommateur ndax ku ci nekk li nga war a mos wax nañ la ko ku ci nekk na yem fu mu war a yem kon solution bi moo di euh, consommateur yi ñu boole leen consommateur boo xamee ne gis nga ku am suukar wala diwlin wala ceeb bañ la jaay wooteel numéro vert wala nga woote askosan bu boobaa sa soxla dana faj. Euh, monsieur Cissé te nag euh, ñu gaaw ci mille volontaires de la consommation yi. waaw foofu laa doon jàmm na ñooy. Uh-huh, recrutement bi. Euh, waaw recrutement bi. lu am solo la ndax ñun ñoo ko initié woon ne war nañ mën a accompagner sous effectif bi nga xam ne moom la ministère du commerce am parce que ministère du commerce foogoon naa ne heure bi dinañ leen accompagner ci ay oto yu bari parce que boo demoon département yi mais oto ba fa nekk sax yàqu na xëy na sax mënta def contrôle bi nga xam ne moom la ñu xaar ci moom maa ngi xaar da nga maam ñu jëndal leen ay oto yu baax jox leen carburant bu doy te mille volontaires yi ñu gaaw ci ba ñu mën leen accompagner te bañ koo politiquer ñun politiquuñu dañu waxoon ne nañ accompagner ministère du commerce parce que effective bi bëriwul kon nañ ñu former rapidement accompagner leen comme ASP yi ñu comme accompagner yeneen. Mm, euh, mais lan moo tax mu yeex ba nëgë ñoom loolu moom a jaaxal parce que problème bi dañ ko waroon régler en amont. ba ko chef de l'État waxee rek waroon nañ ci gën a gaaw ba nga xam ne fi mu toll nii ñu ngi woote ne association temps nañ leen jox temps bu ko defee ñu jox leen ñu commencé former leen c'est très c'est c'est mais ba léegi daal man li may li may alerter mooy buñ ko def yëfu politique xaar ba dégg nga am élection yi di waay jot ñu naan joxe nañ mille volontaires ñii ci département yi ñii ci région yi ma Momar Cissé ñu ngi lay sant di la gërëm. maa ngi lay sant di la gërëm. di fàttali yaa di vice président association des consommateurs du Sénégal. merci.